Sénégal ñëpp ñi ngi naan Cheikh Moustapha Al waaw waaw di ko yàlla baaxal di yëngu ci wàllu ñaan di borom baatin bu mag bu ñëpp ràññee adresse am mooy Zac Mbao cité Cyprès foofu la Cheikh Moustapha Al Karim nekk yow mi am koy bëgganteel nga bëgg mu jublu la Cheikh Moustapha Al Karim da yëngu ci wàllu noo boole leen ba ngeen mel na cereek soow yow mi bëgg ubbeeku wàllu am-am Cheikh Moustapha da ci yëngu ay sacrifice yoo xam ni du am benn effet du am benn conséquence yéen ñi bëgg bayre taw leen seeti Cheikh Moustapha Al Karim moo ci aay ba noppi nag bay joxe ay jaaro xaqiiqiya yoo xam ni ku ko takk te doo tàggoog bayre faiblesse sexuelle xam ngeen ni sonal nañu bari Cheikh Moustapha Al Karim day yëngu ci wàllu ngóore day yokk tamit awra bu tuuti bu mënul dara adresse am mooy Zac Mbao cité Cyprès foofu la Cheikh Moustapha Al Karim nekk lépp lu waay bëgg ci xeetu ñaan lépp lu jëm ci wàllu ñaan bu jëm ci yaramu doomu aadama Cheikh Moustapha Al Karim dalay liggéeyal ba nga gis nga doog koo fay ci lu leer naññ ci lu wóor te gaaw numéro téléphone am 78 77 594 33 77 ak Cheikh Moustapha Al Karim dalay deful nga gis nga door a fay. asalaamaaleykum euh, mbokk internet seen lamb TV mbokk yi mbégte la ak contentement jàkkaarloo ak yéen comme leen ko faral di waxee rek chaque jour maag Modou Anta ñuy xool li nga xamante ni moo leen bëggal ñu indil leen ko ñu mel nag moo tey ñu ñëw fi nga xamante ni mooy Caaroy Géej certifié un grand champion di nekk ci làmb suñu pap suñu xarit euh, di xaritu képp ki nga xamante ni yaa ngi téye papa Khadim Ndiaye Modou Anta moom la ñuy seet tey fa yéene ko dalal fas yéene waxtaan ak moom waxtaanu làmb waaye balaa ñuy waxtaan ak moom dañ koy nuyu rek bàyyi ko mu nekk internet yi ñu ñëw si moom Papa Khadim maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw maa ngi lay fay maay booy di la nuyu di nuyu Modou Anta di nuyu mbokk yow di wax auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur sant sëñ Muntaxa Xaadimu Rasuul yàlla na yàgg te wér sant suñu buntu ci sëñ muy sëñ Modou Habib sëñ Cheikh Mbacke borom Daaru Rahmaan yàlla na yàlla yokk leeram taas ju barkeem di njabootu sëñ Abdoulahi borom dër bi yëpp di jégalu mbokki Sénégal yëpp tey nag gis ngeen bi ngeen ñëwee yi gis nga fi ñu defee si émission bi fee lañ ko daan defee sama buntu kër mais tey gis nga li xew inondation moo fi xew ñu koy sant yàlla muy ndoxum xéewal mais di wax ni autorité yi rek il faut que ñuy bàyyi xel seen population population bi quoi ndax daf ci am solo ndax ñun am nañ benn taxawaay bi ñuy taxawaay ci dëkk bi ku ñu gis da ñuy yaakaar yaakaar ni am na loo xamante mën nañ ci dara am na loo xam nag mën nañ ci dara mais am na loo xamante ni nag mënuñ ci dara mbir suñu borom la mais autorités yi nga xamante ni ñoo fi ne ki fi ne nii maire bu bees la mi ngi doog a installé muy El Modou Ndiaye ku baax la ku brave la wax dëgg yàlla moom euh, Pastef la ne mais wax dëgg yàlla mi ngi def li mu mën mais day doog a toog mais ñi fi nekkoon ñoo gën a yàq réew mi yi gën a yàq caaru géej waaw maanaam maire yi fi njëkkoon a ne ñoo deful fii seen dara géej gaa ngi nii mais pas 100 mètres xam nga caaru warul am inondation buñ ko tegee ci yoon mais liggéeyuñ xam nga ñi fi nekk ñi nga xamante ni tamit ay waa APR lañ ñi fi ne. xam nga nga xam ne ñu man président Macky Sall moo dee ci sama xol mais ñi fi ne jox nañ leen ku ne 10 millions mais dañ ko yemale ci seen bopp ak seen i mbokk génnewuñ ko sax moo tax dóor yi ñu leen fi dóor nii ñëpp ci kontaan xam nga pompe ay ñu jox la lu mat 10 millions lu mat ay ñetti nit yi Macky Sall jox leen ay 10 millions pour ngeen ñëw partager ko ci dëkk bi amul benn pompe boo xamante ni man gis naa ko bu ñu jënd xam nga gis nga sama buntu k a ngi nii kenn julli jiwul jumaa tey ci koñ bi mais lii na metti na quoi. si biir sa buntu sa bundu kër sa bundu kër grand champion bu mel ne yow nga def lu nekk si làmb waaye def lu nekk si réew mi tey sa bundu kër ñëw fekk mu indonendi lan mooy euh, mbébét bi wala lan mooy sabab bi nga xamante ni gars yi bu ñu ko defoon amaana tey sa bundu kër du mel. waaw mais chaque année nii lay mel ndax fii fii ay xur la fii bu tawee ñaari yoon rek day taa ay xur la Xaadim Njaay mi ngi ciy def li mu mën mais dafa am loo xamante ne il faut que autorités yi dugal ci seen loxo jàpp ci ndax Xaadim Njaay ko leen champion bu doon bëre ba bëreetul taxawaay bi ma ci am nag maa ngi koy def ci caaro yi mooy di mobiliser waa caaro yi ñu jox ma cër bu lu fi xew rek bu amee muy jàmm lu mënti doon xaadim la ñuy njëkk a xalaat te xaadim pourtant yorul benn ndombal tànk xam nga yorul benn ndombal tànk boo xamante ni mën na ko def mais waaw dama bokk ci réew mi ci caaru géej nekk ci nekk fi monument li ma mën ak li nga xamante ni yàlla may na ma ko ak li nga xamante samay niti bopp ñu ngi koy dimbalee ku mel ni Matar Ba ministre sport mention spéciale ku mel ni Pape Dou Fall xam nga ba ci Aziz Ala Ndiaye ba xam nga borom géejawaay franchement waa Aziz barke aw Aziz xaritu Balla wax dëgg yàlla ku la defal lu baax da nga koy wax daaw bi sama néegu doom daanoo gisuma benn autorité Thiaroye mennum Aziz Ndiaye laa ci gis barke Rasuul laay mennum Aziz laa ci gis ak ministre sport Matar Ba te kii Matar Ba mu nga dëkk ba Fatick mais defal lu baaxam ak fonk doomu aadama moo tax muy def loolu Aziz tamit yàlla na ko yàlla suturaal ku def baax dañ koy wax ah, mais fii réew mi loolu moo fi ne xam nga ma nekk naa nit koo xamante ni ñu bëri buñ ma gisee dañ naan xaadim mi ngeeg àddina ak li ci biir xam nga mais loolu sant yàlla la sag la mais li may gis ni ku doylu la te ku ànd ak ngëm yàlla la xam nga te ngëm yàlla gi ma àndal ak doylu lu am rek damay jël yàlla teg fa moo tax dara du ma bett dara du mett ci man mais il faut tamit autorité yi fi ne il faut que ñu gëstu population bi xam nga population bi ni ñu leen di gëstoo mooy ñu fu ne ñu géem fa yóbbu moto pompe ñu géem a xool nu ñu defee dëkk bi assainissement ba nga xam te bu tawee géej jaa ngi ni ginnaaw raay du taa te ginnaaw raay moo jur caaro yi moo jur ginnaaw raay moo jur Pikine ma wax la loolu. mais est-ce caaro tey am na ay canalisation yi nga xamante ni bu tawee nii ndox mi mën nañ ci évacuer. kenn def ko fi ñi ko fi def yëpp mooy ñoom yaali jaa ñooñu ñëpp ñoo cotiser seeni i koñ def ko mais xam nga tamit dëkk di nga am ñoo xamante ni 1000 francs sax boo leen ko laajoon duñ ko am loolu day am ñoo xam si yàlla moo bindee noonu ñii dañuy am lu bëri ñii am lu tuuti ñii am lu kii moo tax yàlla bëgg yàlla génne asaka ak bëgg génne sarax mooy ñi néew doole ñi nga xam yàlla may na leen ñu yëkkati seen wërsëg di dimbale ñu néew doole. loolu boo ko defee denc la booy dencal sa bopp rek ak lu la yàllay jox loolu il faut que nit ñi bu bu ñëpp kenn asaka du am sarax du am mais ñii dañoo am ñii xam nga il faut que nit ñiy delloo seen xel te xam ne ay jullitu yàlla lañ dañu war a def te yàlla tax ñu di ko def am na ñoo xamante ne ñu ngi def nag pour mu dañ si réew mi wala pour mu dañ si gox goxaat yi wala dëkk dëkkaan yi ana ba ban taxawaay la waa koñ bi war a jël wala waa quartier gi a jël waaw quartier bi moom li mën a jël rek mooy gémm mobiliser wu nekk benn mais li ci ëpp doole autorités yi ñoo ko war a def ñooy war a def ay canalisation ndax canalisation xaalis sa koy def xam nga wala bon bonne volonté bu nekk ci koñ bi te fii la xam doy na xam nga mais nag ñu ngi koy sant yàlla xam nga lu ñëw rek dañu ànd ak dogalu yàlla muñ ko ñu ci war a defee ñu ñun waa koñ bi nañ mobiliser wu def ci mais maa ngi ciy dox ay jéego di seet ay ay partenaires yoo xamante ni ñu ngi ci réew mi te def te yàlla tax ku mel ni ay as ndaw ndu kumaan ñooñu ñëpp dañuy def te yàlla tax xam nga ñoo ñëpp ay maître El Hadj Diouf ñoo ñëpp da su ma leen fëggee dañuy def te yàlla tax te luñ def ci koñ bi dama ko indiwaat ci koñ bi man ndax koñ bi laa am dëkk bi laa am mooy sama fierté mooy sama lépp tey kon wax dëgg yàlla di duñ mën lu dul gërëm ñooñu kuy def lu baax da koy wax. xam nga ndax boo gisee ñu ne def lu baax ñu di ko wax am ñoo xamante ni am nañ ko mën nañ waaw waaw te mën nañ ko ñu jaar fa te nit ñi preuve la ñuy bëgg. xam nga te man du ma bëgg di dem ci nit mu di ma jox may def ci sama poos wala ma di ko indi sama kër loolu ñaanuma ko yàlla si biir loolu papa la ñuy jaaree fii nga xamante mooy caaxoy géej am na ñi nga xamante ay autorité nañu wala ay porte de voix nañu mais nekkuñu si état mais te yàlla dénk na leen ndombal tànk wala yàlla dénk na leen astud bi nga xamante ni yaakaar naa ne waroon nañu mën gersuwaat jafe-jafe yi nga xamante moo am caaxoy ñu euh, fi nag bëriwu fi de loolu nga ma jàpp ñi fi def su weesoo borom kër gi Samba Diop nga xam ne ñooy toog mool la bëriw gisuma lu may gisuma kuy génne benn volonté bu jóg jënd benn moto pomp xam nga joxe ci xol la alal dafa sax ci xol xam nga il faut yàlla baaxe la nga mel ni ñii ma la tuddal ku mel ni Matar ba Pa Abdou Fall xam nga ak Aziz Ndiaye moom ak tey ki nga xamante ni mooy As Ndaw Ndoukoumane xam nga ñooñu nga xam ne ay ay ku ci mel ni mbay Sarr bu Sénégal Tour ñooñu nga xam ni yàlla may na leen teraanga mais dañuy waññeeku xool xool As Ndaw koo xamante ni yow tey da ngay dem ba jël ay dof di leen employé ci as ndaw ci as ndaw laa ko ma si gisee as ndaw borom dukkumaan jël ay ñoo xamante ni wéruñu ay boroomi xel sang lañ ban set recevoir leen bureau ne yàlla mënoon na koo teg lii xam nga wàññeeku teg leen ko ñoom kon li ko yàlla may da leen ci dimbale kon as ndaw moom ñu laa gëm ñoo ñu dañuy def te yàlla tax yàlla na ko yàlla taxawu yàlla may ko wér nit li nga am daal nit bu ñu waxee nit nit kenn du ko lekk kenn du ko naan dañ koy jariñoo rek nit njariñ kon il faut ñuy dimbalante réew mi fi am yëpp ñëpp gis nañ ko yor sa lu bari téye sa poos wala nga nekk ne peut être Macky Sall ngay jàppale Macky Sall yëkkati xaalis jox la pour nga yóbbu ko ci asoro nga ne ko dongu sa poos ñu ñu noq la xam nga nga nga taxaw di xulli bët di xool dañ la war a auditer la sax yow xam nga yaa ko yóbbul Macky Sall Macky nit ku baax la xam nga li koy yàqal tey ku mel ni Matar Ba euh, ku ci mel ni Mambo Diaw xam nga bu ci amoon lu mel ni diis barki Serigne Fall ak alaaj Hadj Seydou Sow ca ca ca Kaffrine su makki amoon ñu mel noonu billaahi ak waa ji dëkk fii euh, directeur kuddu bi ndax man Macky laa bëgg sama biir xol. yàllaa ko def. ak Cheikh Matiane si sa Dagana. waaw ñooñu xam nga ah, waaw merci ñooñu dañu def ay social ñëpp gis ko teg seen bët kon dañ koy wax ku fi def fii nag attention ku def dégg ku deful doo dégg de xam nga te def dafa am solo nag. waaw am na solo fa la ñu jaaree a anta dugg si daj dëpp bi làmb ji nga xamante ni moom moom la Sénégal yëpp di xaar wala bu ñu laalee fay sa amitié bëri woon bu métti Papa Khadim gis nga ñaari mbër yi combat boobu loo ma si mën a wax avant tout d'abord. waaw man euh, di wax ne auzu billaahi mina sheytaani ndax dañu tuddiwaat lu rëy muy làmb suñu pàpp Gaston Mbengue la donkin tëgg ko di ko ñaanal jàmm mook doomam makan yàlla def ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabil alamin fi ne sama xarit yu nekk sama xarit yu nekk diaspora ñi ma ci xam ñëpp ñu dëkk caaru géej ak feneen ñoom ñëpp ñu nekk Europe ñi Amérique ñëpp jënd nañ seen i waaw ñu bëri démb sax lañ jënd seen i page pour fas yéene déglu euh, dimanche li xew ci diggante Gris ak Balla Balla Gaye di ndaanaan fakk tëdd su amee bés nii lay mel rawatina nag na nag mu am euh, adversaire au taille au niveau muy Gris Bordeaux nekk ci écurie bu mag ñu di ko wax écurie Fass xam nga muy combat de choc boo xamante ni bëri woon nañ la ci am ñëpp gis nañ ko Gaston delluwaat te gàtt ko kon combat bi li ñuy ñaan yàlla dugguñ ceeg bisimilah rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilah rabil alamin muy wax ne di wax ne nag combat bu bu dangereux la ci ñoom ñaari mbër yëpp. guddi yi nag ñu toll may wax ak yow ni ñaari mbër yëpp ñu ngi ci ay réglage ak seen i encadrement ak seeni estap ndax lamb bu fekkee dimanche la jeudi lay commencé vendredi samedi foofu la préparation yam xam nga dañ ne nag lay daan mbër mi nag du dem lamb ci mais ñaari mbër yi nag moom ku ci nekk gëm na tey jii tey boo sëgg ak sa morom da ko war a daan moo tax enjeu bi demee noonu moo tax dañuy wax rek ni Modou Anta combat bi Modou Anta combat bi dafa serré. waaw waa xam nga waxoon naa ci ñu demaat ba ñu demaat ba ci biir ma gis ñaari mbër yëpp am changement Balla Gaye boo ko xoolee xam ne ci 15 jours yi ma waxoon noonu ne ñaari mbër yi seen prépa seen préparation des na dégg nañ ko te Balla ku ko xool bii paase boo ñë boo boo ragu boo ragul rek te di wax te yàlla rek tax di nga xam ne kii il est pare nga ñëwaat xool Gris Bordeaux di nga xam ne kii tamit am na changement ci diggante bi lenn rek moo des muy xaw biir moo xaw a des tuuti mais biir yàqul mbër xam nga màngaa ngi ni yoroon na biir mais gis nga ko ni mu doon bëri ay déplacement yu garaaw la yoroon mais xam naa ni képp ku ñu diriger ci combat bi ñàkk nga ko. waaw muy Gris Bordeaux muy Balla Gaye. Mm-hmm. wax nga ko léegi si biir wax euh, génnoon nga def benn sortie 15 avant mu mel ni sa kaddu googu dafa am impact bi nga xamante ni da nga si ñaari mbër yi ñoom ñaar ñëpp dem defar jiwaat euh, tey combat bi bu tolloo fii mu nekk dernier réglage nan la mbër bi di nekkee ak xam nga ñoom ñaar ay bis bis du leen jaaxal ku bëri bëreeti bëreeti xam nga ni bis du la jaaxal Balla Gaye bëri bëri ay événement la ay combat soog la waru ko jaaxal Gris Bordeaux xam nga combat waru ko jaaxal ndax ay champion au niveau lañ fi mu ne nii au niveau lañ ñoom ñëpp ku ci nekk mën ngaa yóbbu sa biir sa bopp lamb ja sans ñu conseiller la mais lamb ji de laaj lamb joo xamante ne lamb bopp la ak xel ndax bee passé ni ñu bëree dara baaxu ci xam nga waaw ba dara baaxu ci ndax Balla dafa naaw da wuti Gris Bordeaux Gris Bordeaux capté ko mais ba ko capté nag Balla fexe na ba génn ci capté boobu xam nga te Gris Bordeaux waxoon na ko ne combat bi am na lu ma ci ñàkkoon moom laa bëgg moom moom moom laay retapé si waat waaw muy song ma kon Balla loolu duggul ci noppi tëx te Balla loo wax ba Balla Balla Balla Balla di nga xam ni kii ndaanaan la nañ waxante dëgg rek dëgg rek fa ne ndaanaan ku du fadrin moo ko indil fii moo tax mu teel a jël roi des arènes ci moromam ci Sénégal gi fi yëpp Balla rek moo fi ñëw songu Yékini ki ni jël roi bi. ñoom ñaar ñuy jotee xas-xas kenn ko yow xam nga ni waa géejawaay ngay nax waaye dara neewul si yow euh, kenn ko Gris Bordeaux deux minutes laa la may soo ñëwul dinaa dal sa kaw te lu ma fa fekk dinaa ko jël. waaw loo wax si ñaari combat non damay gis ni loolu heure bu ko waxee da koy def Balla du mbër muy xaar ñëpp xam nañ ko wax dëgg yàlla du mbër moo xamante day xaar xam nga mais combat bi combat tactique la moo doon ante combat tactique la boo xamante ni garaaw nag garaaw goo xamante ni lépp loo ci wax sax da ngay tiital yeneen a boo fayoon billet cent mille doo ko rëccu man Khadim man maa la wax ndax bëri il faut mu am fa xeex il faut mu fa ndax Balla am na loo xamante ni waxoon na ko ci Modou ci laa ko gëj a déggewaat nee na combat bi ci lay doxe mbër doodu ko ñëpp a ngi xool nag lu Balla indi gir waaw ba pare giñ gir Bordeaux ne ko yow say supporter nga yeb ku la xool xam ni pare kon nag dèjà ñaari été waaw dama ne ñaari weñ yooyu yuy daje étincelle rek a fay bëri mais ku gën a yeewu nag. ëpp ndoxtu yaay moom combat bi facilement dama xam ndax dégg nga mam déet maa ngi lay dégg bu ëpp ndoxtu ci biir làmb ci ba pare nekk ci biir làmb ci yaay moom làmb ci waaye ku ci topp enjeu wu làmb ci li lay perturbé ci làmb sax doo ko xam te Balla ni ma ko gisee fi mu nii wax dëgg yàlla il est serein na te koro gis naa mu xeex xam nga ndax ñun kenn mënuñoo nax ci xeex am na tuuti changement ci xeex bi temps yi waaw Gris Bordeaux nag gis nañ ko man bëgguma ci dugg sax Modou Anta ndax combat bi dafa ne. Modou Xaadim yow espère nga fële ñaari mbër yi quoi te man damay gis ni léeg damay wax benn wax ñëw seetaan lamb gis keneen ki jëfe ko moo tax dama bëgg di tooñ quoi mais dama gis góor Gris Bordeaux bi ko euh, coach euh, boxeur am tegalee tableau coach bi mooy lancé Gris Bordeaux door remise kon damay jàpp ni Gris Bordeaux day méb Balla Balla door mu remise ko daw attaqué ko kon loolu. lamb njëriñam nga fa gis te Gris Bordeaux ko ko xool xam ni mbëru jëli la day jëli damaa xamul nag bu nee kurtum Gris Bordeaux yum jëli ah Modou Anta damaa xamul lan la fay fekk. looloo jar laaj na. waaw ak waa Gris nag temps yi xaw na diis xam nga xam nga biir boo vente boo ko xawee am tuuti rek pour nga song da xaw a doon jafe xëy na tamit jëlul décision pour song ci combat bi dafa jël décision. pour su Balla su Balla dawee ñëw jël ko mu gëm koo njëtt ak biir yi lépp lépp da nga koy xalaat xam nga làmb booy dem man su ma yóbbu sama mbër gis nga bëri caare yi ngay gis yëpp ñuy bëri di am yi defet nii te ma leen yóbbu dañ ma dul déglu dañu demal la ma leen wax barki sëriñ ci ci ci caméra laa waxee la ma leen wax kenn da ko ci dul appliqué waaw mais ku ko ci waaw kon moo xam ne xéewal la lii lépp xéewal la ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam dara tawu ko yàlla na ko taw tey ak suba ba dimanche mu bañ a taw nit ñi seetaan spectacle bu neex ndax Modou Anta billaahi ñu ngi jëm ci komba bu neex. ci Balla Gaye Gris Bordeaux ndax Balla ndax Balla. jàmbaari fakk tëdd la. waaw waa Modou di ñaan yàlla rek yàlla ñu yàlla defal jàmm gis nga fi ñuy waxee fi la taw bi soobee réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla defal ñu jàmm defal ko samay nit defal ko mbooloom jullit li ak opposition beeg pouvoir bi yàlla defal leen jàmm ndax réew mi jàmm rek a ci géej ndax élection. jàppal pour ñu tàggatoo. tey ñaari camp yi pour supporters yi. rawatina côté mobilisation. non côté bi moom côté mu Fass ak côté Guédiawaye. Balla Gaye mës bëre ba nga gis ci violence ñuy sànni ay siège ak yooyu. Gris Bordeaux waxi nopp ñaari mbër yi ku ci nekk say camp wóolu wóolu nga sa mbër li ñuy wax rek ñu def fair play kii daan daan. kii daanu mu xam ne li yàllaa ko dogal ndam li génnul Sénégal ndax Gris Bordeaux Balla Gaye ay doomu Sénégal lañ ba passé bëri nañ ba pare Gris dem na seeti rakkam mu yëkkati ay dàll yu cher may ko kon il faut que nit ñi xam ne sport la jàngat la sport la li ñuy wax rek yàlla nañ yàlla defal jàmm Gaston bi nga xam moo ko tëgg yàlla defal ko jàmm ak supporters yeeg ñëpp kenn bañ a manqué di nuyu Modou Anta di nuyu sa xarit bi nekk France Modou Anta Abu Abu señ di ko nuyu bu baax moom itam ndax kër xulle lañ xamante muy nit ku baax xam nga di wax suñu koñ bi moom si moom laa doon bëgg a ñëw nii de. waaw ah xarit Lirou Diane. waaw xam nga xa waaw xam nga Lirou sama waay la sama doomu ndey la sànq rek ñu ngi jox ko wax dëgg yàlla yàllaa ñu boole mën na nañoo daje am tiiraay ma mais xolu xolu taalibe la yor ma yor xolu taalibe gis naa ni rek am na stress waaw ndax tey oo naa ko sànq si suba mais dama ko woo rek <laughs> mu ne ma mbër baal ma doo bàyyi ba ci kanam tuuti nga owaat ma quoi dafa am ci lu ma ne quoi waaw di ko wax moom yàlla ko yàlla defal jàmm di wax ni combat bi daal daanaka dañoo jëm ca làmb ja mais ñi koy bëri bëri nañ ko ba pare xam nga yàlla ñu yàlla defal jàmm daal may Gris Bordeaux jàmm may may Balla Gaye jàmm may supporters yi jàmm ñu ñëw def ko ci fair play le ko meilleur gagne mais lamb ji daal cey. mais gisoo si mystique bu bëri. lépp a ngi ci lamb ji. gisoo si bu bëri xam lamb ji gis nga maa ngi dégg ñu naan du lamb mystique Serigne saa ngi génn di wax Serigne si li ñuy wax yëpp dañuy tartane rek li war a am suba yàlla rek ko xam yàlla rek xam la jéego suba Serigne boobu boo ko laajoon ndax tey dina fanaan wala déet du la ko wax. xam nga nañ bàyyi bu lamb amee ñu naan bu desee deux jours nañ ma wax ma wax la kii daan yooyu boo ñëwee da ngay génn ne raj ne diwooy daan te ku ci waxati diwooy daan ne wax ngemb bu mel lan lay indi ak kii ngemb bu mel lan lay indi te man na benn kilifa gu ma wax ma ne ma si mbër mi ngemb lii lay indi mbër mi ngemb lii lay indi waaw wax kii daan mais loolu nag damay mal placé pour wax ko ndax xam nga bés bi Modou Anta dafa toll noonu te dama leen yërëm géej waay la wala taas defal jàmm rek waaw di nuyu ñëpp jërëjëf Mour Anta jërëjëf Fer